mbedd yi nag boo gisee yal ñu ko sànni ca xaj parce que ñi nga xam ni ñoom ñooy ambassade ba ñoom ñoo fa dugal waa ji nay leer c'est dans le seizième ñoom ñoo fa dugal ki nga xam ne mooy ñaaxarañ donc léegi loolu lu lu ci jomaay wuti lu ci protocole jomaay wuti lan la ci protocole wuti lan lan ñaaxarañ duggul benn bu duggoon ci biir di vidéo ngeen wax ñaaxarañ brek am na ñaaxare da doon dugg ba ci biir euh, duusu ñoom Macky Sall ak ak Maram Faye ñaaxare da doon dugg ba ci biir ambassade ba dugg ba ci biir a biir a biir foofu ñu dëkk noonu ci duus ya xam na duus <laughs> yi mais mënatu ko gis mënatu dugg ëtt bi sax mënu mënu fa teg tànkam kon kay affaire ba jeex na day dof dof lu seen kanam nii rek di golo gololu ñaaxarañ mo doon taxawalu xam nay doom Macky Sall la xam Macky Sall la xam Marème Faye sénateur fu ne mu dugg fa ba ci duusi duusi cabinet sax bu Macky Sall di daye sax ñaaxarañ da ko doon gëw sénat di fa <laughs> jeex na tak ci mbedd mi rek ci mbedd mi rek la taxaw di duul taxaw di duul ah mais ga buntu bii ko demat bu mu jógee ci forum ba la ñew mu taxaw ah boo gëy la demat demaat demaat Élysée taxaw ci bu no ah, le président ah, ñu dugg demat ñu woowaat ko mu dem buntu kër Abdou Diouf tooxal eh, le président eh, ñu ñooñu dugg bàyyi ko ci buntu ba mu ne lamb ne na yàcc na yasar barn kenn gisu ko mu taxaw ci mbedd ma di leen xaar ñooñu toog fa waxtaan ba lu ñuy waxtaan presque une heure de temps nuyante génn mu ñaa eh, président président daw na mi ngi ni Milan donc euh, laal naata laaloo moom nax sa kooy la rek <laughs> voilà kooku moom day cinéma day cinéma mais moom xam na ni mbir jeex na xam na ni toog muy dox jeex na torox na wuti liggéey loolu mom jeex na won woon jeex na tak bu le bu le nangu nak ñil nax leen ci nak da ngeen wala da leen doon kokkeli di ñaawalaka di di leen jema a merloog yooyu parce que li ngeen ko waxon barke alquran alxuraan jegewu fa duggul fan na dugg fa kan wala même keur yépp ci mbedd mi la na leen won fenn fu mu dugg ci biir lepp ci mbedd mi la donc euh, bu leen jaxlé rara ma woon leen légui bu leen jaxle de <laughs> président Diomaye mi ngi xool waa ji rek xool leen kii mooy papa yi Cheikh Gadiaga Cheikh Gadiaga kii mooy papaam gis ngeen kii gendarme la moo bokk na ci ñuy garder Senghor bu Senghor jëlee pouvoir bi bàyyi ko Abdou Diouf lege ko ko mu continuer di garder Abdou Diouf dem ba miin famille kii moo jur Cheikh Gadiaga donc affaire de famille la foofu noonu ki moy papa Cheikh Gadiaga donc Cheikh Gadiaga yag na dem gis ngeen Cheikh Gadiaga bir keur Abdou Diouf la nek ni ki Cheikh Gadiaga bir keur Abdou Diouf gis ngeen photo bi du gaa enam du daram bir keur Abdou Diouf la legui nak ana le snapper na len photo ab <laughs> na len ko photo amu ko ci mbedd ma moment bi gaay di photo ma nga ci mbedd ma lam lacc di wour di xaar le snapper ma nga téye portable dougal ci poosam di taxaw ci buntu ba buntu keur Abdou Diouf duggul cak tak no waxul sakat bokkof ñu sakat mu taxawat fofu yor portable am jom mi jaxle <laughs> ni na ki sax gajaga gal ci bir keur ga ci bir keuru gis nga almoir ba buntu baag yooyu ci bir keur ga donc seex gajaga lu ko may li gis nga Abdou Diouf mi ko koy present Abdou Diouf moy wax ak mom nii Abdou Diouf Abdou Diouf xamna Cheikh Gadiaga parce que papam mo don garder ki moy papa mo don garder Abdou Diouf donc Matar Pedro Diouf xam Cheikh Gadiaga yéen xam ngeen Cheikh Gadiaga nu mel ci relation rof tàngoor dugg génn <laughs> voilà donc euh, <laughs> muy introduire nii di jaay nante di ngeen Cheikh Gadiaga di introduire di jaay nante mais Cheikh Gadiaga fa la ko fekk tam gi bu bu bu moom moom moom new fa di takkal sax ba ba jomaay paree da ba dem yoonam la ci Cheikh Gadiaga yem ca la mu yem foo la toogaat naan fa ataaya waxtaan fa ñibbi donc sax Gagny jéemul sax def comme sniper boobu la le sniper mun a fenn ñëw ta waaw waaw félicitation sodoctala félicitation ñuusul ca xaj ñuusul ca xaj ak say félicitation donc na leen leer donc sax Gagny fa lañ ko fekk ca kër ga mu dugg ca biir kër ga ba mu duggee ca biir kër ga it ba waaj a demee dem na yoon gis nga Cheikh Gadiaga daa miin ca kër ga gis nga lii kër lii ca kër ga la xoola li yàgg na mi ngi nii ci kër ga gis nga muy li yalla da mil keur ga xana xat sax boko fekke ci keur kër dak xat xana do ñew di doxani keur fekk sa xat ne xat ba du duggu donc ki ci keur ga la nek ki ci keur ga la nek te te ba muy nek ci keur ga kenn xawul xat na papa ba fa jaar mom mu nek ci keur ga xat wala muus boko fekke ci keur kër dak parce que da ne no damay ñew président bi ñew nañ dak muus nañ dak xaj ya. donc ki ci keur ga la dak li yag na mi ngi mbiri kon yàgg danoon ko kii ca kër ga la dëkk kii dañ ko faa fekk leer na kii dañ ko fa fekk kii ñëwul àndul délégation dañ ko fa fekk comme nu mu fa fekkee Mindaan ba dàqul Mindaan ba comme nu mu fa fekkee Pedro dàqul Pedro comme nu mu fa fekkee euh, Ousmane Paye dàqul Ousmane Paye donc waa kër ga même kii Cheikh Gadiaga dañ koo téyewoon ci buntu Pedro moo wàcc ne non kii ci kër gi la bokk Cheikh Gadiaga dañ ko téyewoon ci buntu ba waa ji ñaaxarañ dañ ko téyewoon ca buntu ba photographe dañ ko téwon ci butu ba Pedro bu mu wacce daf ne ki sa gadja ki ci kër gi la bok ne photographe bi ci kër gi la bok ñaa xale di xul li ko kii xaw ma ko kii ñu ñuus ko ci xaj ne ko taxawel ne yow ba ni duggul kër Abdou Diouf Pedro ne Matar Matar Pedro ne ki xawmako ma ko xawmako xawmako ki ki ka ki ma ko kii kii kaaw kii fu mu jóge ambassadeur moko fi indi te magget say mënu ko duggal ci bir mo taxit ci buntu bala taxaw voilà <laughs> donc na leen leer kon li ngeen di ñor lu fi ñor bañ koy màcc amu fi wax ji jaru ko amu fi dara amu fi kee ci kër ga lañ ko fekk daf fay fréquenté kële ci mbedd ma la taxaw di sina ci mbedd ma te lu mu ci am kus néew taxaw noonu ci à côté ci mbedd ma duggul benn yoon ku ko ko def ku ko ko may moom mooy ki nga xam ne moom mooy euh, l'ambassadeur mais soxlawuñu kenn pour mu dem naan day photo président Diomaye président Diomaye soxlawul pour ay snapper sox ñun soxlawuñ ay snapper ay snapper soxlawuñ ko soxlawuñ ay sniper amna photographe professionnel mi ngi ci ambassade fu mu dem amna fa ambassade bo dem amna amna pro professionnel yu fa nek soxlawu ko du jël ay photo du jël dara donc détail yoyu amul sens ciow lu bari li le li kessa la won li kessa kee dafa neew di leen kokkali parce que li ngeen ko toroxaloon mu taxaw ci buntu palais ba jomaay président jomaay ak Abla Macky Sall di di di di di di kii di dugg kii di génn mu taxaw ne leen ngeen kanam toog muy dox dox mu mer ci nag màtt ne xaaral ma gololoo ñii bàyyi li muy def bàyyi ki mu àndaloon muy papam muy muy muy papam muy euh, Wally mu bàyyi ko mu dem italy mom mu ñew Paris di golo gololu yor portable am di duul ka dajale ñet yep ci mbedd mi

infiltré wul protocole lu Diomaye kenn kenn mënu ko kenn protocole bu dëgër këcc la yoon bu taxaw ambassade yi nag dinañ leen changé yéen xam ngeen problème mu ambassade yi révolution bi ambassade yëpp lañ taal bu Canada bu États-Unis bu France bu bu bu Belgique bu nangam ak nangam yéen xam ngeen lan moo tax ñu attaqué woon leen parce que waa Macky Sall ñoo fa nekk loolu nag ci seen domaine la ndem xam naa ci sax tuuti na ci seen domaine la ci seen domaine la bés bu jotee dinañ leen fi génne ñoom ñëpp ambassades yi consuls yi ña fa nekk ñëpp loolu lool moo tax bu ñuy euh, diaspora bi bu ñuy attaqué ambassades yi lañ attaqué taal nañ bu bu bu bu bu bu euh, jaxase nañ bu euh, New York jaxase nañ bu Canada jaxase nañ bu Belgique jaxase nañ bu Suisse jaxase nañ yëpp donc yàgg yàgg ngeen xam ni ambassades yi ñoo ñun ñëpp xam nañ ni waa Macky lañ wa kon lolu nu ngeen ko xamé lako président Diomaye xamé nu ngeen ko xamé lako Ousmane Sonko xamé na ngeen ko xam wayé comme nu ma leen ko waxé dafa am lu ñu doon xaar pour songo mais kenn infiltré wul le président Diomaye ki ngeen ni ñaaxarañ duggul Ben yoon fu Diomaye nek jëlu ko audience dugg fa lijjanti woo ci mbedd yi lay lay taxaw ñett yépp yu ko gis ci mbedd yi la ba le président Diomaye sank bu muy ñibi gis ngeen gisulen ko fa

donc moom la laa wax saa su ne koo leen jiital da ngeen koy wóolu ba ñu gaaw a faqastal wala ngeen foog ni yéen li ngeen ca xam ñoom xamuñu ko ci wala ñoom dañuy bàyyi noonu wala non non non non ñi ngeen wóolu jiital leen bu leen leen faqastal bu leen leen faqastal bu leen leen faqastal doucement lentement aaya pimbam loo bëgg demb ma demb gën laa bëgg boppam loo bëgg dem ma dem ba gën laa bëgg boppam kon nay leer nee naa leen ñi ngeen jiital ay jàmbaar lañ bu leen leen faxastal bu leen leen gaaw a ŋàññi bu gars yi dañoo am maîtrise billaahi ñi ngeen jiital dañu am maîtrise xam lu bari galère nag comme des ours en plein désert balaa yàlla di leen may lii du ñuy ngaaka du ñuy ngaaka de

Sonko Diomaye ku ñu bàyyi ngay tëpp cëppi ba foog ne yaa ci tegal gaay daj boo tourné xool xoolaat duñu lay xoolee da ngay démissionné directeur yaa ngi démissionné calmement te coow jibul ba tàkkul ba léegi jëleeguñu leen fa Maodo Malick mbay daa démissionné am na keneen ku démissionné buñ la fa bàyyee boo yaakaar boobu ñu ngi lay waajal wallaay billaahi ñiñ fa jot a bàyyi nii cocc lañu def déggu leen coow jibul ba tàkkul suuf yëngul ana ñoom Jéggi Diop yéen a woon ci télé yi hey eh, Maga Ousmane Sonko mu fi yàlla ko Jéggi Diop oh, Jéggi Diop nee na tekk damatul télé damatul rajo nee na salaw boo yow fàtte woo Jéggi Diop kon du ñoom ñooy fàtte Jéggi Diop jëlee wuñ ko fa de ñu naan salaw di kii <laughs> ay waaye sama gars yi ku leen xam ku leen xam di nga nalaw de ku leen xam dëgg dëgg dëgg ku leen xam rek wallaay di nga nalaw <laughs> Maodo Malick mbay bu ANAMO de il a démissionné am na ñeneen ñuy démissionné rànk-rànk di yóbbu seen démission te coow jibul am na ay DAGE yuy démissionné ay directeurs yuy démissionné ay secrétaire général yuy démissionné ñu ngi démissionné rànk sama gars yi jàmbaar yi ñu ngi toog rek di leen xool jàng di leen jàng calmement coow jibul bal taakul suuf yëngul kon bu leen jàpp ni gars yi dañuy nalaw